avocat yi ñu mëna wax procureur moy bour procureur moy boumé procureur lu mu wax juge bi sax amul sañ-sañ wax ci tay ji bu am bu ñu bu fekkoon nek juge bi bëgg na gëné Assane su avocat yi dindé bu procureur né juge bi d'accord ma ci yoon dafa né juge bu mu tont kon juge bi fi mu né mom ci boppam jaamu procureur lay né ci anam yoy lañu lañ la ñu dossier li Assane def ñu koy ñaawlu xam nañ ne